merci beaucoup euh, Ibrahima si chers internautes c'était la revue des titres ngeen àndoon si ak Ibrahima Faye ñu ngi koy remercier bu baax merci beaucoup di leen woy l'abonnement yi rek ak partage yi te saa su nekk ci cloche a jot en émission yi am solo yi ñu leen di indil fii si l'évidence TV euh, comme ni ma koy waxee tam saa su nekk émission bi du ñun dong ñun ak yéen la de ce fait dañuy bëgg di am seen ay réaction via les commentaires ngeen wax seen xalaat ci ni réew mi di doxee ak sama chroniqueur yi waxtaan yi am solo yi ñuy amal fii nii biir euh, bët set Euh, dañuy jàll rapidement si suñu euh, vif du sujet comme ni ñu koy waxee tey nag euh, suñu waxtaan dinañ ko axé sur deux points première bi comme ni ñu koy defee saa su nekk dinañ njëkkee suñu actu commenté naka waxtaanee le rapatriement massif de Sénégalais d'Allemagne un phénomène qui commence vraiment à inquiéter bu ñu paree dinañ si toftal suñu chronique du jour naka waxtaanee dépôt de la motion de censure l'ultime bataille de Benno fa la ñuy jaare rek tamit àndaale si ak suñu invité Seck moom waxtaan yaatu yaatu yaatu tey ñu dalal euh, kuy wuyoo ci turu monsieur Babacar Ngom di coordonnateur Babacar Mbow oui <laughs> désolé euh, suñu invité di monsieur Babacar Mbow euh, di coordonnateur du mouvement des doomu daara euh, des patriotes voilà des doomu daara patriotes euh, fële ca Nioro du RIP dinañ sekk ak moom waxtaan bu am solo am solo macha allah euh, restez scotché rek bët set la sur votre chaîne préférée di l'évidence TV Cheikh Diagne dañuy ñëw rapidement si sunu actu commenté ñu gis loo xamante ne beesu fi amaana doomu sénégalais yàgg nañ ko dund même bu dul Allemagne di beneen réew mais amaana almaañ lay gën a bare ñu gis ni sénégalais yu bari bari bari rapatrié nañ leen jëlee leen Allemagne indi leen fii ci Sénégal Cheikh lan mooy waral yooyu noonu. <laughs> merci président nga rappelé ne du lu bees ci réew euh, lan mooy waral loolu je pense que pour répondre si dina mais boo xoolee de 2018 à 2021 rapatrié nañ lu ëpp si plus de 100 sénégalais yoo xam ne dañ doon nekk Allemagne ñu rapatrié indi leen ONG boo xam ne benn ONG boo xam ne moom lu muy dox mooy ci yelleefu askan wi lay dox mu tudd ONG Boffa fii. noonu lañ ko tuddee boo xoolee doomu Sénégal yi nekk Allemagne yëpp bu ñu leen rapatrié wala rapatriement avant muy dem moom mooy jox askan bi information yi. même amoon na ko ci mel ni Boubacar Seye nekk ONG droit yooyu lay liggéey donc yu si bëree bëri am na nit ñoo xam ne ci yooyu la ñuy liggéey. nag mooy gis nañ ces derniers jours ces derniers 48 heures voire 72 heures ay sénégalais yu nekkoon Allemagne ñu xëy xëy jékki-jékki ñu ne dañu leen di rapatrier delloowaat leen Sénégal xamuñu nag yenn condition parce que gouvernement bi ci war a communiquer communiquer wu ci ONG bi bu loon ONG Bofa bi sax nit ñi mën nañ bañ yëg ne am na Sénégalais yu nekkoon Allemagne ñu rapatrier mhm. indi te du Allemagne rek comme ni nga ko waxee souvent dañuy gis ñi nga xam ne c'est des yu nekk Espagne dañuy xëy un bon ñu jékki-jékki rapatrier waat leen indi duñ xam ci yan condition lañuy rapatrier mais xamuñu woon tamit yan condition lañ fa demee woon mhm. li ko man a expliquer nag c'est tout à fait facile pour le cas de l'Allemagne on se rappelle que euh, mois yi passé Allemagne dañu def ce qu'on appelle les élections régionales amoon ay élections régionales il y a le le chancelier allemand Olaf Scholz moom dafa perdre élection yi parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy les les extrémistes droite ñoom ñoo gagné élection yi te ñoo ñooñu dafa amoon ay conditions yu bare bare bare yoo xam ne dañu ko tegoon gis nga àdduna moo soppeeku mooy doxe noonu boo xoolee y a ce qu'on appelle les dans tous les pays loolu moo fa am léegi nag ñi nga xam ne ñun on est des africains il faut qu'on soit fier d'être africain ñu jéem a def ci suñu biir réew yi liggéeyal ko suñu réew parce que gis nga Marine Le Pen en France bu gagné élection xaw ma tey suba xaw ma mais képp koo xam ne da nga nekk noir nekkoo ci ay conditions yu réglo da lay rapatrier maanaam amoo papier c'est pas là da lay rapatrier nga ñëpp si moom kafu ci foofu ci ko basé si li nga xam moom mooy rapatriement des des étrangers ci la yaa Donald Trump ñëpp xam na ne tey bu gagné parce que war na dem élection mois de na dem élection euh, fi lekk weer bu gagné élection yi face à la dame là moom tamit day rapatrier ñi nga xam ne dañ fa nekk comme des noirs wala ci nekkuñu dans les règles. Mm. Sénégal am nañ fi benn exemple typique gis nañ ki nga xam ne moom mooy Tahirou Sarr chaque jour mu génn. xaritu Guinée nga xam ne xaritu Guinée c' est des extrémistes. ay mm. extrémistes la ñu leen tuddee et dafa commencé ne jël ampleur phénomène bi nag c' est mm. pas uniquement en Allemagne c' est c'est partout dans le monde même bu ñu demee ba ci suñu biir réew ñun Afrique débat yooyu dafi commencé di judd te débat yi mos fi posé wu problème léegi nag loolu li ko waral mooy pays yooyu dañuy dem ba sentir que ni ñoom dañ leen a dañ leen a envahir en quelque sorte excusez-moi du terme mais dañ leen a leen envahir boo gisee même dans ces pays ñi nga xam ne c'est des c'est des nationalités wala dañ fa dëkk c'est tout un problème léegi pour ñu am liggéey ay conditions yu difficile la dund léegi nag pour ñoom conditions yooyu ñu nekk pour ñoom étrangers ñoom ñoo doon ko teg donc nag il va falloir ñu xoolaat seen modèle ñu xoolaat seen politique ak seen modèle bi ñu doon doxee moo tax tout le temps ngay gis ñuy rapatrier des Sénégalais ñuy rapatrier des Nigériens ñuy rapatrier des des ñuy rapatrier xam ne c'est le plan mondial ñi nga xam ne dañu nekkoon ay Sénégalais nekk biir Allemagne xëy ñu xëy xëy rapatrier avant ñu leen di rapatrier am na ay accord am na ay signature entre les deux gouvernements parce que état coopération la léegi ban rôle la si gouvernement Sénégal signé point d'interrogation pourquoi mu accepté tamit ñu indiwaat ay doomam yi nga xam ne dañoo dem foofu pour liggéey wala même motif bu leen fa mën di yóbbu loolu benn la beneen bi mooy je pense que tant que résoudre yi nga xam ne moom mooy problème immigration clandestine duñ jóg si di di rapatrier ay Sénégal wala duñ jóg di ñàkk suñuy doom yu dee si biir géej je me rappelle Fatou Diome bu fekkee doon nga lire le ventre de l'Atlantique daf doon wax ne euh, ces gens là qui meurent dans les plages ce sont des et des arabes eux quand ils meurent ça coûte mais si c'était des blancs la terre entière aurait trempé mais elle a parfaitement raison gis nga ñi nga xam ne ñoom ñooy dee si biir géej ay noirs lañ wala ay arabes bu fekkoon ay tubaab boobu léegi dégg est-ce que mas nga dégg benn tubaab boo xam ne dañ fa dañ ne dafa jóg pour dem émigrer pour des mosul am du am parce que ñoom quoi qu'on dire ils les moyens de de le faire et les moyens gis nga moyens yoo xam ne dañ koy jël yëpp def ko ci Frontex bu fekkoon mooy yooyu jël nañ ko def ko si géej gi pour baare ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ñun suñ marine nationale bi lan la jariñ ah. suñ patrouilleurs yi lan la jariñ il faut obligation rester leen ci doo parce que il a l'obligation de garantir la sécurité des personnes et des biens donc quel que soit alpha ak lu mu ko mën di coûter na fexe ba xale yooyu nga xam ne ñoom ñuy génn dem si géej gi di si dee mu maintenir leen au pays mm-hmm. léegi nag xam naa du yomb parce que condition yi mu leen maintenir au pays nekk fi mais il a l'obligation de le faire et ko def tant que résoudre li nga xam ne moom mooy phénomène l' mm-hmm. émigration clandestine duñ mm-hmm. jóg pense que doon naa lire benn article boo xam Euh, Espagne la daf lay wax ne la gis nga les espagnols day am benn période boo xam ne dañ les cultivateurs mooy baykat yu mag yi dañuy soxla ay personnes ressources ci seen tool yi. on sait la population européenne elle est vieillissante donc Afrique rek moo fi am population boo xam ne seen une population jeune ñoom à un moment donné ils font exprès ñu bàyyi frontières yi. pour ndaw yi jaay ci géej gi. Mhm. Cheikh dagguma la parce que yow toujours da ko doon wax et yaa ngi naan Sénégal euh, am nañ des possibilités am nañ Ibrahima sax daka daan wax euh, naan ay drone ak yu nekk pour mën a téye ndaw yi fii nii mën leen a tere jéggi mais Espagne tamit peut-être mën nañ koo ku ku fa egg si ñu téye la doo dugg donc tu as parfaitement raison. fi ngay wax nii loolu laa mhm. y a un lobby boo xam ne moom moo nekk derrière tout gis nga nit ñi fi ñuy xalaate ne ah, bato bi dafa am benn capitaine kooku mooy engrais xaalis booy yóbbu leen non non c'est au-delà de ça am na ay ponkal yoo xam ne c'est des puissants yoo xam ne ñu ngi nekk derrière tout ça gis nga le milliardaire espagnol bu fekkee dafa dem ba constaté que ne toolam yi nga xam ne moom mooy génne son gagne-pain amatul ay personne ressources yu ko liggéey il va falloir moom xool nan lay def ubbi bu ngay dégg coow mais en un moment donné da ngay dégg ñooy la gaal gi dugg na gaal gi dugg na ils le bu ñu bëggul benn gaal dugg benn gaal dugg donc ñoom ñoo ko def exprès nag bu ñu demee ba nga xam ne soxlaatuñu effectif bi nag ñu baariwaat ko que l' doit être fort foofu laay waxee Paul Valéry dafa doon wax à chaque fois que l'État doit être fort s'il est fort nous périssons s'il n'est pas fort il nous écrase mais l'État doit être fort parce que gis nga man euh, en matière de coopération je may teg dinaa def de telle sorte que sama askan du ci gaañu man tamit du ci gaañu mm-hmm. donc là ça prend de que ça soit en France que ça soit en Allemagne mm-hmm. que ça soit aux États-Unis ñun nag ñoo war a xool ban politique la suñu état yi di développer pour maintenir à chaque fois da ngay dem et eh, ce qui est ce qui est mauvais dans tout ça mooy. ki nga xam ne dafa dépenser xaalisam par exemple supposons ku jël 2 millions de francs CFA mu def ko ci ay dépensam dem Allemagne il n'a même encore fait 6 mois ñu refoulé ko kooku bu ñëwee frustration bi muy indaale. dafa yaakaar ne état bi moo ko teg dafa yaakaar ne Sénégal moo ko teg kooku léegi dootul amatu benn xel boo xam ne yàq rek lay xalaat. ak leneen ak leneen donc de ak leneen la ñamale bu ñu leen dàqee tey bu subaa dañuy demaat. Mm-hmm. donc loolu yëpp il faut état sensibilisation d' abord mettre les moyens nécessaires wala essayer de mettre en place des mécanismes yoo xam ne dina maintenir ces enfants au pays. c' est très important Cheikh Diagne wala sax balaa ONG di génn di wax peut état euh, njëkkee si c' est très important Cheikh merci beaucoup euh, Ibrahima euh, ban gis-gis nga par rapport ak sunu actu commenté tey comme ni ma doon wax tout à l'heure yàgg nañ gis rapatriement yi muy France di di di Espagne di fu nekk du Allemagne kese mais ça devient récurrent. Euh, merci Kourouzita, ça devient récurrent et c'est pas une première fois pour le mhm. Sénégal donc euh, donc ça veut dire que ni yàgg nañ ko dund peut-être que ces derniers jour ces dernières heures la ñu gis que ni am na benn série de rapatriement rapatriement boo xam ne amaat na ñu war a euh, arrivé fële ci aéroport Blaise Diagne donc pour man ay AIBD mu nekk loo xamante ni peut-être sénégalais yi duñ ko rafetlu parce que bu fekkee da nga jël tous les moyens wala faire tous les sacrifices yi nga mën a def dem ba Allemagne ñu jëlee la fa ci yenn conditions yi delloo si la sa réew je pense que ça pose problème et daa nekk loo xam ne ça a parce que euh, si on se rappelle euh, le 15 juillet 2015 amoon na en Allemagne ay sénégalais yu bëri yoo xam ne jëlee woon nañ leen fa ci ay conditions yu yu yu yu yu des conditions abominables. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne peut-être bi ñuy ñëw sax ak conditions yi ñu leen indee. ak ni nga xam ne noonu lañ leen doon identifier dafa nekkoon loo xam ne peut-être mën nañ jàpp ne euh, état bu Sénégal moom moo ci lëkkaloowul ak euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les dirigeants allemands parce que Sénégal dañ ko woon sur sur la liste moom ak Ghana pour pour que bépp sénégalais boo xam ne nekk na foofu wala muy ghanéen mën nañ xëy un bonjour rek répatrier la yóbbu la Sénégal sans pour autant xam ndax sénégalais nga wala déet dañoo demoon ba saisir ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa DAF muy direction de l'autonomisation des fichiers pour que bu ñu ñëwee ñoom ñu def liggéey bi ci des que ki ñuy jëlee Allemagne indi ko Sénégal xamuñu sax il est sénégalais ou bien il est euh, wala il est malien mais dañ koy indi Sénégal uniquement pour bu ñëwee travail bi nga xam ne moom moo ci des fii lañ koy defee pour man loolu manque de respect notoire la parce que bu fekkee dangay ngay jëlee nit ki sa dëkk di koy delloo si war nga mën a identifier xoo def li nga xam ne moom moo ci war d'abord pour nga mën ko delloo réew mais waroo ko jël di ko indi ci ay conditions yoo xamante ne nii parce que peut-être ñëw bi nekk sa dëkk neexuloo ak du genre donc pour man euh, dafa nekk loo xam ne war nañ ci gën a taxawaat war nañ ci xoolaat beneen question bi nga xam ne moom laa moom laa ciy souligner Allemagne ku nekk xam na ne population sant lañ am soxla nañ main d'œuvre soxla nañ ay jeunes soxla nañ sénégalais yi kese que ñu dem foofu mais dañu sentir benn discrimination raciale boo xam ne moom moo fa am sénégalais yi nekk foofu moom la ñuy dund dañ lay wax carrément que ne ñoom euh, en tant que sénégalais duñu leen considérer sax comme ay nit. Mm-hmm. maanaam euh, dafa am benn racisme boo xam ne moom la ñu fay subir d' abord mm-hmm. donc loolu yëpp sénégalais euh, la gouvernement Sénégal bi nga xam ne moom moo war a sécuriser ces sénégalais là bas defu ci benn effort. Mm-hmm. et man li may wax rek mooy que ne pourquoi yeneen dëkk yi mën a am benn accès ci suñu dëkk. heure bu leen neex dugg heure bu leen neex génn bu ñu ñëwee sax ñoom ñoo la fi ëpp droit mu ñoo la fi ëpp kàddu. ñoom mm. lépp loo xamante ne sénégalais bi mu ngi koy def ñoom dañu koy def à l'air libre et ñun au plus bu ñu génnee ci yeneen dëkk yi dañ koy dund dañuy subir ay ay ay mbir yoo xamante ne nii après à la limite tu te poses la question à savoir est-ce que état bu Sénégal lim ci war a def mi ngi ko ciy def ñoom mm. je me dis non et gis nga bu fekkee dañu dem ba nga benn société boo xamante ne peut-être dañu la ko dénk. jeunesse bi moo ci ëpp solo. parce que ñoom ñooy euh, l'avenir de demain. et ñoom ñoo war a génn wala ñoom ñoo war a yore li nga xam ne moom mooy dëkk bi ñoom ñoo war a jàpp ci mbir yi suñ demee ba ñoom amatuñ yaakaar amatuñ confiance di génn di dem ci yeneen pays ñu wax la ne la. émigré yi ñi nga xam ne dañuy jógee Sénégal di dem di liggéey li ñuy dugal biir Sénégal kenn xamul nu mu toll presque la majeure partie des familles yu nekk fii ñoom ñoo leen yor ñoom ñooy liggéey di yónnee pour que ñooñ mën a survivre donc ñooñu pour man état bu Sénégal war na ci jug war na ci gën a taxawaat parce que à l'époque même Macky Sall recevoir na leen mais diggéey yi mu leen diggoon ak tout ça ça allait devant parce que amul benn résultat boo xam ne tey mën nañ ko ci jàpp mbir yi mi ngi continuer di wéy ba tey même dafa am ay centre yoo xamante ne dañ lay wax ne en Allemagne dañ ko def ci côté aéroport yi lu toll ci quatorze centre soo yegsee foofu lañ lay yóbbu xaw ma nuñ koy tuddee xaw ma enquête centrum lañ ko tuddee boo ñëwee foofu lañ lay dugal mën nga fa def pendant des mois wala des années doo liggéey doo am liggéey doo da ngay sonn da ngay dem ba la day am feebar yoo xam ne moo leen di dal benn médecin la ñuy jël pour pour pour pour tout un centre mu mën a gérer Sénégalais yi fa nekk dañuy xëy un bon jour meeb leen dugal ci avion indiwaat leen Sénégal imaginer torture boobu ak perte de temps boobu nga xam ne le Sénégalais mi ngi koy dund Allemagne te nga am ay dirigeants fii Sénégal ji mu ñu ci def benn politique ji mu ñu ci wax te ñoon Euh, li ko waral ci ñoom la jóge parce que bu fekkoon tey Sénégal dafa mel ni Dubaï. Mhm. wala bu fekkoon tey Sénégal da ngay xëy yow même soo amul compétence sax mën nga dem def benn liggéey boo xam ne. peut-être diñ ci am dara est-ce que di nga soxla génn. Mhm. loolu dafa wër mu ngi ci mbëkk bi mu ngi ci feneen ak feneen parce que gis nañ sénégalais yi ni ñu doon demee di jël gaal gi ba tey noonu lañuy ñuy demee li may wax rek mooy que peut-être. ñoom am na luñ ci xam mais waxuñu ko parce que ñun wala peut-être citoyen lambda bi sax mi ngi toog këram mais mi ngi am ay renseignements ci ay gaal dañu war départ dem telle heure wala tel jour. donc loolu pour man le citoyen lambda bi nga xam ne dafa toog këram comme moo mën a am renseignement boobu pourquoi pas état bu Sénégal bi nga xamante ne ni moom il a tous les moyens pour mën a stopper gaal yooyu xam nga wax naa ko fii ma ne la gaal yi Sénégal lañ koy tëggee. pour que sénégalais yi mën a dem. te te ñi koy tëgg nekkuñu ay usines yuy jé wala dañuy dugg ci benn kër defar gaal mais xam nañ fan lañ koy defaree. bu leen neexoon tey suba suba ñu dem saisir ñooñ lu tax ngeen defar gaal terme muy génn gaal bu ñu jàpp mën nañ xam identifier kan moo ko defar ak fan lañ ko defaree. ñooñu pourquoi pas ñu dem teg leen loxo. mais non duñ ko def parce que am na leneen lu làkkatu. te Ibrahima dagguma la c'est extrêmement grave parce que euh, un jour sax yéen koy wax fii euh, peut-être kiy tëgg gaal bi. promoteur bi sax wala courtier bi mën nañ ko wax këram lay toog moom du demaa ah, day toog këram di encaisser ay. nee naa la kooku di dem. kooku mooy criminel bi. kooku mooy rayaate parce que moom mooy tëgg gaal bi moom mooy encaissé xaalis bi du ci dugal doomam jamais mais ay doomu jaamur la ciy dugal jël xaalis bi dundi ko ak ay njabootam wala mu investir ci Sénégal bàyyi gaal bi mu dem après li ci xew kenn du ne borom gaal bi kenn du ne xam nga lan la ñuy def ñi dee dee nañ dem nañ seeti leen nangam ak nàngam ñi deewul masawul nañu leen loolu jusqu'à quand combien ay milliers de Sénégalais ñoom ñoo dee ci gaal gi gis nga nombre bi nga xam ne moom lañ xam bi ñu xamul moo ko ëpp foofu donc loolu rek pour man doy na pour que état bu Sénégal jug ci et c' est bon moment pour ma ne la c' est le moment parce que dañu nekkoon ci benn peut-être situation bu bokkul ak bi ñu nekk tey on benn gouvernement boo xam ne nekk na fi pendant douze ans loolu amul benn saafara amul benn changement buñ ci mën a noté tey ñu jàpp ne amatuñu confiance ci ñoom dañu leen fi jëlee ñu mettre fi en place un nouveau gouvernement et depuis lors mënuma wala benn Sénégalais mënu la ni def nañ ci benn politique boo xam ne dafa dafa jëm ci ñu ngi def defloo de tout pour que sénégalais yi dootuñu dem donc loolu yëpp ça veut dire que ne ñoom euh, tey indexé nañu leen ci question boobu war nañ ci jël seen ay matukaay war nañu def euh, tout les moyens pour def de telle sorte que dinañ mën a jàpp ne bi fi président Macky Sall di nekk kat nombre de gaal yi ñoo doon dem mais bi Ousmane bi président Bassirou Diomaye fay ñëwee sentir nañ ne am na changement am na amélioration jusqu'à euh, bu ñu demee d'ici un à jàpp peut-être benn gaal mënatul génn Sénégal pour dem à l'Espagne et autres donc pour man li ci am solo mooy sénégalais yi jóge fii di dem ay sénégalais yoo xam ne dañoo dañoo perdre confiance dañoo amatul yaakaar ci seen dëkk moo tax ñuy rallier di dem si yeneen dëkk donc il est temps que ñu mayaat leen espoir il e temps que fu ñu mën dem ci yeneen dëkk yi am nañ ay ministre de des affaires étrangères am nañ ñoo xamante ne ni ñooy liggéey pour loolu ak suñu ambassades yi nga xam ne ñoo nekk si yeneen dëkk yi ñoom aussi il est ñu jël seen ay matukaay ci loolu parce que la Allemagne da ci am ay wax yu bëri yoo xam ne da ngay indexé même ambassade yi nga xam ne ñu ngi foofu que ne dañu croiser seen ay bras di seetaan sénégalais yi ñuy dund loo xam ne waruñu ko dund et il est que ñu jël ci ay saafara parce que mi ngi gën a law te lu mu gën a law tamit sénégalais yi ñoom ñoo ciy sonn ñoom ñoo ciy gaañu et du ñu am li nga xam ne loolu lañu bëgg dans ces pays là. c'est important Ibrahima merci beaucoup euh, sunu invité monsieur Babacar Mbow ñu ngi lay nuyuwaat di la dalalaat ak jàmm. waaw kay jërë ah, ngeen leen di fay. di rafetlu vraiment jataay bi ak li fi jot tàbbi ci ay kàddu mhm. am na solo lool mhm. ndax euh, réew mi noonu la war a demee. Mhm. di partager ay idées. Mhm. di waxtaan ci actualité yi xew daal. Mhm. ok macha allah euh, sa gis-gis par rapport ak suñu sujet bi ñuy waxtaanee tey ñu gis ni am na ay sénégalais yu bari euh, daal dinañ leen patrier ñu jóge fële ci Allemagne ñëw ci Sénégal te dañ koy gis souvent euh, muy Cheikh di Ibrahima sax total ñu ngi doon wax ci wàllum état ban rôle la ci état war a jouer ak ban posture. moom la war a am xam nga dafa daaneel fa am solo. mooy dafa am état bu fi jëkk ñëw. balaa état wu président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu gis ne li ëpp doole ci li ko fi jëlee mu Macky Sall mooy sàggane ndaw ñi parce que li ñu doon jooy mooy ndaw ñi amuñu xëy. amuñu liggéey yàlla dogal message boobu jàll ci ci jeunesse bi. ñoom ñu am engagement benn détermination pour jëlee fi Macky Sall ngir xaj na bu ñeneen ñëwee seeni jafe-jafe mën a soppeeku. Euh, gëm naa ne ñi ngi ci ndax xam nañ ne ndaw ñee leen fal tey gëm naa ne yaakaaru ndaw ñi faw dañ ci veiller bu baax waaye daal liñ ci sunu gis-gis mooy état war na ci gaaw jóg ndax dafa nekkoon loo xam ni priorité la woon waaye itam demande social la woon ci askan bi ngir ni ñaa ngi dee ci géej gi euh, gone yaa ngi màngaan yi di bàyyi seen réew ngir ñàkk yaakaar ci réew mi yaakaar jooju nag moo taxoon ñu jëlee fi ñi fal ñi kon ñoo ngi leen ci xaar di leen lancer un appel pour ñu bàyyi xel ndaw ñi xam ne métti na kii investir ba dem biti réew euh, dem ba yegg foofu comme ni ko Diagne waxee euh, bu fekkee ñoom ñi ngi ñëw peut-être gëm naa ne mën naa mu nekk procédure boo xam ne avant la woon balaa ñii di ñëw waaye sunu nouvelle régime bi gëm mu ñu dugg ci yooyu di signer ay accord pour ñu rapatrier ay nit indi leen moom. gëwma loolu mais ñu ngi leen di lancer un appel daal pour ñu góorgóorlu ci ndaw ñi bàyyi leen xel ndax dañu leen yaakaar yaakaar bu rëy la askanu Sénégal am ci ñoom ok. merci beaucoup euh, Cheikh bu ñu déggee euh, sunu sunu sunu invité euh, peut-être mi ngi naan que régime bi fi bi fi bi fi jógee mhm. peut-être ñoo ñoo ñoo indi lii yëpp et régime bii nii signéwul quelconque accord par rapport à ça Cheikh. en fait euh, on ne peut pas affirmer ni mm-hmm. régime bi fi nekk actuellement mm-hmm. signé na tel ou tel accord loolu moom mm-hmm. mënuñu dugg dans les détails mais ce qui est sûr mooy en fait on sait tous que état nu muy doxee entre les états c'est des coopérations sénégalais yi nga xam ne dañu leen rapatrier ñu jóge Allemagne ñibbi Sénégal on sait sûr et certain que le ministre des affaires étrangères wala ki nga xam ne moom mooy le consulat même il était au courant de que en coopération état la def loo xam ne kenn ki yëg ko peut-être mën nañu leen indi ci yan conditions yi ñeen di indi ak ci yan accords yi ñeen parce que il faut que nit ñi tamit accepter leen yow bu fekkee da nga dem nekk benn sénégalais mm-hmm. nga dem réewu jàmbur mm-hmm. réew a nekkee woo fa ci conditions yu légal mm-hmm. nekkee woo fa si benn loo xam ne réew ma tënku ci yoonu réew ma buñ la rapatrier c'est tout fautif ah comme leen la wax mais c'est pas parce que dañuy rapatrier que rek état moo fautif am nañ droit rapatrier bu fekkee da jalgati sart réew moom bu rapatrier comme ñi nga xam ne dañoo nekk ay étranger nekk biir Sénégal fii buñ mhm. constaté que ne yi nga xam ne moom la Sénégal teg ak règle yi ñu dañ koo jalgati Sénégal am na droit rapatrier mais bala mu leen di rapatrier il faut mu saisir ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité réew moom mhm. c'est comme ça que un état se fonctionne léegi nag euh, on tout à bi nga xam ne moom mooy l'emploi des jeunes léegi euh, loolu moo tax Sénégal yi jëlee leen fi yow wax nga ko ci say ah. kàddu léegi nag gouvernement bi nga xam ne dafa ñëw di installé wu ça fait cinq mois maintenant nit ñi am nañ ci ñoom yaakaar te yaakaar boobu la xalaat ñoom surtout jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo leen fi teg foofu la ñuy mais c'est pas parce que état parce que boo déggee ñi nga xam ne dañu dugg ñu nous on n'entre pas dans des détails que uh-huh. état dafa encaissé ay xaalis uh-huh. encaissé wul xaalis moo tax mu rapatrier ça c'est des yoo xam ne c'est des débats de la on n'entre pas dans ces mais ce qui est sûr mooy l'état était courant que ni tel Sénégalais dinañ rapatrier dinañ ñibbisi parce que bi ñu ñëwee AIBD c'est les gendarmes qui l'ont accueilli uh-huh. gendarmes yooyu ils sont sous la tutelle du ministre des forces armées hmm. forces armées il est sous la tutelle de qui hmm. premier ministre le premier ministre il est sous la tutelle de la présidence de valeur chaîne boo xam ne dafay lié c'est tout un chaîne boo xam ne c'est une chaîne de commandement C'est important, cher Diagne. Merci beaucoup. Chers internautes, vous êtes toujours dans votre émission Bet7 votre chaîne préférée euh, di l'Évidence TV di abonnement yi nag ak partage yi te di de notification bi pour mën a